jàmmaneex jàmmaneex jàmmaneex ñun moom la ñu ñoon moom dafa neex siida neex ñun moom la ñu ñoon jàmm rek ka jaara ut ni jaara ut ku fi indi ay dangarus kaay leen ñu ànd bokk ndey bokk baay bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum yu tedd yi jàkkaarloo ñun li seetaan ñu ngi leen di nuyu ci suñu émission bu am solo bi nga xamante ni baaxoo ngeen di ko ànd ak suma ñaari xarit yi ma séq ki sama wàllu ndeyjoor euh, docteur Ibrahima Khalil Ndiaye docteur en pharmacie docteur ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalaat ci plateau عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو سلمى ني لاي فاي يام بك تي دي دجاوات اك سوني بوك تي ميشن بي دي سونو سانتي وا جي سونو كوتي جامو تاميت غينا با نيو رافيت لو تي وايام ني نتي اندك آه، استاذ ابراهيم خليل نيان مومن خام خام جيم تي والو ويرغي يارام مي تي والو آه، كوتي ليغا خامني مي ميديسين تراديسيونيل آه، شيخ بي ني لاي دال باخ باخ اوكي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ني لاي نيو سي مبوك مو تدمي ابو سلامه di nuyu yi euh, auditeurs yëpp di nuyu tamit suñu mbokk mi nga xamante ni moom lañu seqal plateau bi di suñu xarit Ibrahima Khalil Ndiaye Ibrahima Khalilullah Ndiaye ñu ngi nuyu ñëpp. yéen ñi jàkkaarloo ñun tamit ñu ngi leen nuyu bu baax di kontaan ci ànd bi ngeen ànd ak Islam TV rawatina ñi nga xam ne ñoo féetee Parcelles Assainies di ñu topp ci canal 47 chaîne 81. Euh, incha allahu taala balaa yàgg yeneen gox yëpp tamit euh, ci réseau câble bi ngeen ñu mën topp foofu comme ni ngeen ko xamee Islam TV télé la boo xamante ni dafay yëngu ci wàllu islam islam boo xam xam ne ñaari wàll la dafa am côté boo xam ne côté ruux la mooy li fi borom xam-xam yi taxawee ci wàllu jàngale ni ñuy jaamu yàlla ak yooyu mu am beneen côté boo xam ne côté bakkan la mooy nit kiy dund nu muy def ba dund bi muy dund ci kaw suuf nekk dund bu nëtëx moo tax émission bi jug muy sunu santé xam naa dañuy njëkkee laaj yi ak sunu mbokk mi nekk sunu côté càmmoñ di Cheikh Ibrahima Khalil ñaan yéen ci wàllu bu ngeen yëngatu muy médecine traditionnelle eh, xam nga bu dee ci wàllu docteur eh, Cheikh Ibrahim Khalil Ndiaye moom ñoom pharmacie yi ñuy def ak yooyu ñu am ay laboratoire def seen recherche di trouver seen ay garab ak yooyu mais yéen wàll gi ngeen féete xamante ni suñu mag yi fi nekkoon daan nañ faju di am ay feebar di faju di am tamit ay yu jël ba leen aar ci yenn feebar yi yan méthode ngeen utiliser pour xam wàllu santé yéen. Euh, alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah ñu ngi mbokk yëpp. jërëjëf Cheikh Abou Salama si bi am na solo trop waaw xam nga euh, mbiru garab euh, xam garab découvrir ko xam ni nangam lii nangam lii lay faj dafa yàgg ak doomu aadama laata fii ay laboratoire di am laata fii euh, maanaam yenn gëstu yi di am booba nit ma nga tàmbale woon di faju ndax nit dafa yàgg ak garab ndax yalla da ko wacce walé ak manki manki googa nak moy waral yenn say muy tawat hmm. tawat googu nak dafa laaj bu ko defoo dafa laajon muy am lu muy fajoo loo xamante ni lay faje yi nga xamanteni daf koy gar di galankor wergu yaram lolu kon bo doomu adama wacce ci souf rek ci la fi lolu waccale bu ko defé yenn yi nañ ko découvrir ci tajruba manam par experience, garab go gis rek ñing ko découvrir par expérience ak seetlu goo xamante ni nit ñi ñi ngi koy seetlu ci li leen wër ak ci li nga xamante ni moo ànd ak ñoom mm-hmm. noonu la ñu def ba xam ni nangam lii mooy faj nangam nangam mooy xaj faj nangam nangam mooy yenn saa tamit ci animaux yi ñu dëkkal dangay gis xaj bu tëddee ñaari fan ci feebar boo ko toppee da ngay gis yenn saa day dem ba àgg ci genn garab wàqi ba mu xóot mu daal di lekk ci reen bi daal di wér naka noonu tamit ci muus bu feebaree boo ko toppee da ngay gis mu daal di dem ci àll bi ba dem ci benn garab lekk ci xob yi wala mu gas ci reen bi daal di lekk daal di wér. bokk na ci loolu bokk na sax ci garab yi nga xamante ni yi gën a am solo la ci jamono ji nga xamante ni benn buur moo ko découvrir laata yonent yàlla Isaa sax di ñëw euh, nga xamante ni dafa demoon ci àll bi di bi. bi mu rëbbee mu jam benn kéwél waaye mu jam ko kéwél gi daal fexe naa ba rëcc ko dem mu wër ko wër gisu ko mu jaaxal ko mu dem ba am juróom-ñaari fan mu ni ñi mu àndaloon eh, mu jël ay soldaar ni daal vraiment dina fexe bu wër ko ba gis ko yi muy dem di ko wër di ko wër di ko wër ba fekk ko ci benn montagne nga fekkee ci benn montagne mu gis ni am na lu muy mar ñu fexé ba japp ko biñ ko jappé gis ni góom bi dafa dafa wér ci diggante une semaine boobu matière bobu mu doon mar muy joggé ci euh, ci montagne yi ñu jël ko def ko analyse mujj gi ñu di ci faj ay góom di ci faj ay dam damm bokk na ci garab yi ëpp solo fi mu toll ni ci wàllu kii dam dam ndax day faj dam dam ci 21 jours ci liñ ko découvrir xëy na ci euh, expérience waaye gis ni tamit lii am na lu koy jëfandikoo di ci am ak ci wér-gu-yaram naka noonu tamit noonu la def ci ci yeneen garab yi kon daal lañ ciy dégg ni xëy na eh, anam yi ñoo wute mais yéen am na seen mbir yoo xam ne yéen ngi ko gëstoo absolument yàlla yàlla barkeeral leen yow Cheikh Ibrahima Khalil Ndiaye moom la ñaari Ibrahima la Khalil Ndiaye Khalil Niang macha allah <laughs> yow dañuy dañ lay laaj eh, wàllu fagaru mooy prévention eh, ban solo la am ci société bi société bi ban ban ban ban ban solo la prévention am ci ñoom. alhamdulilah bu prévention daanaka boo ko waxee mooy fànn gi ëpp solo ci wàllu ci wàllu santé doomu aadama ndax te nit ki bu xëse ba feebar rek moy lañ doon ragal dal nako donc ki wér moy ki nga xamanteni xamante ne euh politique de santé buñ koy wax cim réew wala ci askan li ci jitu moy fexe ba nit ñi buñ feebar ginaaw gi nag ci ngay fexe ay yitte yoo xamante ne da ko def ba ki feebar mën a faju waaye li jiitu lépp mooy fexe ba nit ñi bañ a feebar ndax wér mooy doxal société tey nit ñi bu ñuy xëy di liggéey nekk ci seen njaboot nekk ci seen seen yitte mën a talante mën a demalante daa fekk wér am bu bu wér di amee rek lépp ay taxaw donc fexe ba wér googu du yàqu lépp loo xamante ne dañ koy jëfandikoo. ba fexe ba nit ki du feebar loolu mooy dugg ci wàllu prévention loolu nag sikki sàkk amut ne bu ñu xamee danger ak ak ak lor gi nekk ci feebar ci société da ngay xam ci saa si njëriñ gi nekk ci wattandiku ko moo tax ba bu yàggul dara sax suñu réew réew mel ni Sénégal boo seetee suñu ministère bi yor wàllu santé dañ wax ministère de la santé et de la prévention médicale ah daanaka booy xool loolu répétition la ndax boo waxee sant rek wax nga wax nga prévention waaye ñi jàng balaa ak yooyu xam nañ li ci nekk ci répété loo xamante ne waxoon nga ko ci lu gën a golobal day wane yitte gi nga xamante ne jox nañ ko loolu di prévention. donc daal prévention bu ñu ko doon bu ñu ko doon tënk njëriñam ndel mooy njëriñ gi wér am rek mooy njëriñ gi wér am saa yu prévention gàllank euh, sooxee maanaam prévention mooy fagaru moom la war di wax fagaru fagaru boobu saa yu sooxee rek. da ngay gis ne société bi yëpp ay sooxu sooxe ndaxte feebar day yomb tëdd day yomb productivité bi day wàññeeku ci wàllu économie ci wàllu xam-xam ah, ci wàllu social ci wàllu famille domaine boo mën a dem rek da gis ne productivité bi day wàññeeku lañ doon xaar ci doomu aadama yi duñ ko duñ ko mën a taxawee moo tax lépp loo xamante ne day dugg ci cadre fagaru day nekk loo xam ne lu am njëriñ lay doon moo tax wolof yi sax tënk ko dinaan fagaru moo gën faju moo gën faju te booy xool it moo gën moo gën a sakkan ndaxte e, ñaare feebar bi nga xamante ne fexe nañ ba fagaru ba dalul doomu aadama bi e, la ñuy dépensé pour mu fagaru ba du feebar ñaare mooy gën a néew lool li nga xamante ne moom la ñuy dépensé ginnaaw ba mu feebaree ngir mu wér donc booy xool ci wàllu sakkan ak ci wàllu productivité da ngay gis ne fagaru daal nekk na loo xamante ne mënta mënta ñàkk. te léeg-léeg sax bu wéree pour mu mel na mu meloon dana xaw a indi ay. effectivement parce que feebar yu bëri léeg-léeg day ànd ak ginnaaw ba nga xamante ne feebar bi jóge na fi. ay lor yoo xam ne da ko fiy bàyyi. imma ci kàttan gu mu wàññi léeg-léeg mu dem ba ci handicap boo xamante ne day tax nit ki li mu mënoon dootu ko dootu ko mënati. wax nga lu am solo yàlla nañu yàlla musal kon ci feebar yooyu te bay ñu ñuy fagaru. yow Cheikh Ibrahima Khalil Niane dañu lay laaj est-ce que am na faj bu ñu tuddee fajum diine est-ce que lislaam am na faj boo xam ne daal lii fajum islaam la comme ni ñu koy dégg léegi faju sunna wala faju quran wala nangam sangam yu demee noonu. alhamdulilah laaj nga laaj bu am solo xam nga doomu aadama yàlla da ko bind wàcce ko ci suuf waaye tamit boo xoolee li tax ñu naan ndax am na faj mu dagan wala faj mu dagan wala fajum sunna wala faj mu doonu sunna. mooy sama mbokk mi fi mu daanelee rek foofu laay ki jële mooy prévention maanaam fekk nit ki ba du feebar suñu diine di diine lislaam ni mu yitte woo fekk nit ki ba feebar ci feebar yaram xëy na di nga ci dikk après nu ko raw la yitte woo fekk nit ki ba du feebar feebaru xol feebar boo xamante ni feebaru xol feebaru ngëm-ngëm moom lay nekk looloo tax euh, yittewoo gi mu ko yittewoo tamit ndax feebar yi dal feebaru yaram yaramu doomu aadama amul benn feebar boo xamante ni bu ci faatee nit ki dina ko yóbbu safara du ABC du cancer du sida du lenn amul benn feebar boo xamante ni bu rey nit ki feebar bi dina sabab mu dugg safara waaye nag dafa am yenn xeetu pratique ak yenn xeetu faju yin yoo xamante ni day génne ngëm yàlla ci nit ki wala daf koy yóbbe ay bàkkaar te bàkkaar yooyu mën na koo yóbbu safara loo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikkee ñëwul moom ngir jàngale faj waaye xam nga lislaam bàyyiwul dara ni ko juif yi niñ ko daan waxee daan ko tagge saxaaba yi naa leen seen diine daal bàyyiwul dara lépp la leen jàngal ba ci wàllu faju it daf ñu ko jàngal tegal ñu ay règle générale yoo xamante ni am faj ci la war a ci la war a tënku bokk na ci la ci ëpp solo xadis bi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fatadaawu wala tatadaawu bil xaram faju leen waaye bu leen fajoo lu araam ba mu defee loolu tamit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na fi ay faju yin fekkoon na fi ay faju yin fekkoon na nit ñi daan dem ci xamb yi fekkoon na ñu daan dem ci gisaanekat yi fekkoon na ñu daan def manam di rendil di def ay sacrifice moy li ñuy tuddee ay sarax diko hénel génneel ay jinneek ay rawan ak ay yenen l'islam daal dàq loola teggi ko teg feulé l'islam nak bam ko teggé teg feulé nak dafa indi nak alternative dafa indi lo xamanteni moy mooy wuutu loolu nga xam nit ki bu ci yamé soxlaatul muy dem ci lu haram loola nak mom la ñen ñi di tudde at at-tibbun nabawi at tibbun nabawi wala العلاج الشرعي faj moo xamante ni ci ñaari anam ci lay am benn bi dinañ ci faje ci alquran waaye dinañ ci faj tamit fexe ba tënk faju bi nga xamante ci la ñuy fajoo ci lu daggan ba duñ ko génn te loolu dara ëpp ko solo ci ci jullit bi rawatina dundug doomu aadama bi su ma la déggee mooy faj mi dañuy fexe ba méngoog lislaam mhm. mais nekkul faj moo xamante ni ni ngay demee ci quran fekk fa ay saar amul benn téere boo xamante ni daal dañ naa yeneen bi wax na lii ci faj ak lii ak absolument ki di mooy ki mooy li ma la wax mooy junj yi nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moccal na nit ku feebar mu wér yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nit ñu moccal ko ñu moccal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na nit tamit ñu yóbbu ko ci docteur ci koo xamante ni ab docteur la classe wu Ibrahima Khalil Ndiaye gi te kooka sax nekkul woon ab jullit li gën a wér sax ci yenn riwaayaat mooy mu jul tuub waaye moo doonoon médecin la woon ci médecin arabe yi gënoon am xam-xam muy eh, alxaaris ibnu Kulda eh, kooku eh, xam nañ ko bu baax kon faju kon nit ki mën naa faju lu dagan mën naa faju ci garab yi moo xam garab yi pharmacie la wala garabu traditionnel la waaye nag na fekk nag mu tënk ko nag ci loo xamante ni lislaam daf ko nangu lislaam da koo da koo da koo accepté. macha allah Cheikh Ibrahima am na solo trop yal na yàlla fay la yow Cheikh Ibrahima docteur euh, Cheikh Ibrahima Khalil euh, moom la am est que sunu dëkk bi dëkk bi dund nii bu Sénégal. solo soosu tax na nguur gi jël ay matuwaay ci wàllu budget ak ci wàllu ay structure yoo xamante ni wax dëgg yàlla population bu mu amee euh, taw am fu ñu waaw xam nga xam nga réew mi dafa am lu ñuy wax ministère de la santé et de l' action sociale nekkoon na fi ministère de la santé rek wala ministère de la prévention médicale et de la santé ala kulli xaal lépp day delluwaat ci wàllu santé ministère boobu lii rôle am ci biir état mooy lépp lu jëm ci wàllu yaramu doomu aadama bi te nee naa la ku wax wer yaram ne fagaru ba tax na jamono ju nekk. ci programme mu ministère day am toujours ben volet bo xam volet prévention lay doon loolu nag euh, danaka bo yebu nga ni depuis depuis sax colonisation ba l'égui depuis jamonoy tubaab bi ba légui ñu ngi indi ay ay ay stratégie yo xamante ci walu fagaru lay lay dello euh na ay njëriñ yu bari bari yo xamante ne bu ko occasion bi may mën nañ ko mën nañ ko tuddu

ah bañ nekkee xale eh, daa ngeen fàttaliku ci école daan jàng ay feebar yu mel ne ay diphtérie ah ay poliomyélite ah xeetu feebar yooyu eh, programme vaccination yi fi amoon tax na bañ dem ba daanaka faagaagal nañ ko bu jóge fi eh, tey boo jëlee lu mel ni lu mel ni sibbiru sibbiru campagne de prévention bi ci def tax na mu wàññeeku bu baax a baax a baax a baax bu bu njëkk njëkk da daan sibbiru bay bay crise di déliré ñu koy ñu naan mu ngi tam ay mbokkam dëmm ah

yu mel noonu rek la état di di di di di di utiliser di ko accompagner nga xam ne li ci ëpp li ci ëpp boo koy seetlu daanaka dañul génnul sensibilisation ak vaccination euh, nga xam ne gis nañ ci ay résultats yoo xam ne vraiment ay résultats yu extraordinaire la te rawee nañ ko réew yu bëri ci ñu wër ci wàllu programme de prévention te bëri na feebar yoo xamante ne da nga koy dégg ci réew yu ñu wër mu fay def ay épidémie di fa def yoo xamante ne yu doy waar la boo ñëwee Sénégal da ngay gis ne am nañ ci am nañ ci euh, taxawaay bu am solo la. waaw loolu moom li mën a euh, xel la nit ndax bu yàggul ne Ebola bi defe naa ni euh, exemple la ci yàlla yàlla jàppale nguur gi dañ gën a mën a taxaw ci bëgg-bëgg yi ak population yi. Mm-hmm. Cheikh Ibrahima Khalil yow dama lay laajaat ba léegi. Mm-hmm. Euh, ci li ngay dëgg sànq ci lislaam fi mu teg wér-gu-yaram ak loolu waaw loolu tax dafay firi ni kon wér-gu-yaram ak ñàkk ko am dafa am lu muy laal ci jaamu yàlla gi ñu war a defal borom bi subhanahu wa taala ndax am na jaamu yàlla yoo xamante ni nga wér da ciy impacté absolument alhamdulilah waaw waaw waaw waaw ñàkk am wér yaram day gàllankoor nit ki ci lépp lu muy def rek ci ci dund ki day gàllankoor nit ki ci wàllu ay activité am yi muy def waaye day gàllankoor nit ki sax ci li ko fi andi li ko andi ci suuf muy maanaam jaamu yàlla ndax loolu tax ñu bind ñu daf koy eh, gàllankoor sax ba tax na nam ko mën a nam ko war a mën a jooxee du ko jooxee noonu a tax prévention maanaam fagaru doon lu am solo lool lool lool yitteel lislaam naa ci indi ay kii yu ndaw rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mi ngi wax naan bokkul ci mbaax di tukki di woor loolu wax ju am solo la ndax dafa mas dem gis koo xamante ni dafa mës a tukki ba ci yag gis ko xamanteni ni ngi ko mur ñi di xëpp ndox ñi di upp ñi di nangam ñu ni mu ni xélo fa xew ñu ni ga fé da xamna ku wor ma fa nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal ni laysa min al birri asawmu fi safar bokul ci mbax ci jëf yu bax yi yàlla bëgg di tukki di wor bu fekke nak manam ci koor ga da fay indi ab choono bu mel noonu waye ndax mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tukki na wor waye dafa fekk ni choono ba man attan na ko moom ci yaram attan na ko ci kii kon loolu maanaam wàllu fegal nit ki la ngir mu bañ a dugg ci feebar comme ni ko Cheikh Ibrahima Khalil Ndiaye euh, Khalilullah Ndiaye ni mu ko waxee léegi bokk na tamit ci yooyu ci maanaam wàllu sàmm sàmm nit ki dafa am benn euh, européen bu bindi bu ñu wax ki René Dickie Sandi wax lu am solo ci diine lislaam dafa ni diine lislaam dafa nek diine jo xamante day fek nit ki ba du febar ñu laaj ko loolu naka la nek mu ni ndax xolal l'islam ni mu yittewoo ak ciat ni mu yittewoo ak ciat nit ki di raxas ay loxom raxas ay parti yi nga xamante c'est visible chaque jour manam bis bu nek dina ko raxas lu mu tuuti tuuti juróomi yoon dina jàpp l'islam di digle sangu l'islam di digle wisu wisu mooy ku dem ca wanag ba mu ne na nga ak ndox mu sell mu set nee na yooyu day protéger nit ki ci boppam te ki ko wax nekkul ab jullit da koy protéger lan ba du feebar euh, ci naka noonu tamit yeneen pratique yoo xamante ni ci lislaam la day fekk nit ki ba du feebar booy tukki ñu ni la ah tukki bi kat may nañ la nga boole may nañ tamit nga julli kit ñaari ràkka ñu ni ah booy tukki euh, julli goo xam ne maanaam ñeenti ràkka la nga wàññi ko def ko ñaar ñun laa booy tukki kat lii nga waroon a woor day yàlla nee na la kat ah bu fekkee kat mën nga koo leb ba beneen yoon nga fay ko jigéen joo xamante ni gis na gis na mbaax lislaam yi ko ah teggil nañ la sa koor gi ndax kenn ku nekk xam na ni dafa am luy génn ci moom daam yoo xamante ni euh, ay ferñeent yoo xamante ni daf koy manqué dafay soxla di ko renouveler ci journée bi lislaam teggil ko koor kooka jigéen ji gis mbaax lislaam teggil ko julli ngir lan ngir prévenir ko ba du am dara loo xamante ni lu ko gàllankoor la ci wàllu kii wér-gu-yaramam ku gis mbaax ñu ne ah góor ki jigéen bu gisee mbaax bu mu sëy bu fekkee dafa gis deretu wasin bu mu sëy loolu pour lan la pour aar ko mu mën a des ak wér yaramam waaye pour aar tamit eh, ki nga xamante ni kii di borom këram la tamit ba du am benn ki jàngoro kon l'islam kon dafa yittewoo wàllu prévention yittewoo goo xamante ni ni mu yittewoo Euh, maanaam wàllu kii di wérgu yaram comme ni ko sama mbokk waaye Cheikh Ibrahima Khalil loola tax yenn jaamu yàlla yi ku feebar du ko man du ko man te comme que nag jaamu yàlla di koo defee ni ko yàlla santaane dafa nekk lu am solo loo tax lislaam tamit di yittewoo wàllu wérgu yaram di yittewoo aar nit ki ba nit ki du mën a du mën a feebar du mën a am jàngoro. waaw jërëjëf Cheikh Ibrahima Khalil vraiment tontu bi am na solo trop jàngat yu bëree bëri mën nañ ko ci damay dellu sa yow sànq fi nga daanelee ci wàllu prévention bi. Hmm. na ni état bi def na ci ay avancé yu am solo yenn réew yi ñu wër sax yenn feebar yi ñu jànkoonteel ñoom ñoom kii ñu ko ñoom am am euh, daru leen. Hmm. foofu may laaj euh, est-ce que am nga ay exemple yoo ñu ci mën a limal yoo xam ne ñuy xool teg suñu bët comme da nga waxoon ni am na ci yenn yoo xam dañu ko doon jàng ci ay téere mais gisatuñ ko loolu laaj la mais beneen bi may dugal laata ñuy daaneel mooy seen wàllu yéen faj muy. produit pharmaceutique yi ak yooyu est-ce que dafay dépendre ci exemple africain bi garab bi lay mën a jël européen bi moom mënu ko jël wala euh, garab bi fu mu mën a jógee rek bu ñëwee Sénégal moo xam ko mën defal ñu a jëfandikoo. Mm-hmm. parce mm-hmm. ne garabu tubaab bi ak garabu wolof yi. Mm-hmm. est-ce différence boobu amul ne mun nañ ci joxe yu bari. Euh, dama ci jox benn misaal bu bu gàtt rek Sénégal bokk na ci wàllu masalan VIH sida bokk na ci réew yi nga xamante ne ñoo gën a tuuti le taux ci àdduna bi ci àdduna bi euh, ci wàllu euh, taux de prévalence feebar bi maanaam boo xoolee population bi ñi ci am feebar bi ah par rapport ak nu toll da ngay gis Sénégal taux bu taux bu ndaw lañ ci am loolu nag ay programme la yoo xamante ne programme de prévention la moo ko moo ko indi ndax bu ñu bàyyi woon nit ñi rek yaruñ leen xamañ leen la mooy feebar doomu jàngoro bi ak naka la ñuy def ba wattandik ko sikki saaka amul ne taux boobu danañ ko danañ ko romb bon xëy na xëy na xëy na xëy na lu mel noonu mun nañ ko wax ci yeneen yeneen ak yeneen i feebar wax naa la sànq ci kaw vaccination lim ñu permettre ñu ñu wattandik ko damay joxe benn misaal bu daw rek raxas loxo raxas loxo nga xamante ne lu basique la lu simple la euh, tey tax na feebar yu bëree bëree bari daanaka dañ koy teel a bu fi duggee bal sax pour mu dugg fi problème lay doon xam ngeen ne at yi ñu ay 2005 2006 2007 daan nañ dégg masalan choléra euh, ravage yi mu doon def ci réew mi euh, tey gis nañ ne yu mel noonu wàññeeku na wàññeeku na bu baax a baax a baax donc ala kulli xaal ñu ngi jëfandikoo ay méthodes de prévention yoo xam ne ñu ngi ciy gis ay résultat yu am am am solo yu am am solo léegi nag par rapport ak li nga wax ci garabu tubaab ak garabu wolof ci wàllum faj garabu tubaab ak garabu wolof daanaka booy seet amut garab du ay askan bu ñuy askanalee wolof bi bii bu pël bi la bii bu séeréer bi la yàlla ni mu bindee doomu aadama yi ñoom ñëpp ñoo bokk physiologie ñoo bokk ni seen ni seen yaram di doxee ni seen ni seeni organ di doxee ñoom ñëpp ñoo bokk sax

ñi am yenn feebar yu mel noonu mën nañu am aussi parfois ay particularités par rapport ak gox bi nga dëkkee tey am na feebar yoo xamante ni da koy gis ci dëkk tubaab bi doo gis Afrique kon daal ci ah. gàttal garabu tubaab ak garabu wolof amul léegi nag euh, mu des li ñuy tuddee lan la ñuy tuddee ñun garabu tubaab ak garabu wolof dafa am garab yoo xamante ne euh, tey ci ci ci technologie ni mu avancé ak science ni mu avancé ak gëstuwin bi xëy na moom la ñuy wax médecine moderne li mu jur ci ay garab loolu la ñuy tuddee ñaari garabu wolof garabu tubaab li nga xamante ne moo fi nekkoon ci ay aada ak ay cosaan ci ay reen yi nga xam ne dañ ko utiliser directement ñu tuddee ko garab garab ki mais nag comprendre benn bir lu am solo la mooy que ne li ñuy tuddee médecine moderne tey li ëpp ci garab yi ñuy jëfandikoo ci gàncax ki la jóge loolu ñu bëri xamuñ ko léeg-léeg gàncax googu nag ak fi ñu ko mën a utee ci àdduna bi lu fekkante dama joxe benn misaal siburu siburu bu njëkkoon faj ko lu jafe woon la faj ko lu jafe woon la ndaxte daanaka benn garab rek lañ amoon bu ko daan faj te moom itam ci ci ci gàncax gi la jógee mooy garab gi ñuy wax kinin kinin jógee ci xeetu garab bu ñuy wax kenkina moo nekkoon nivaquine bi daan mu weex lool moom lañ daan jëfandikoo ngir faj sibur loolu ci ci gàncax gi la jógee li wuutale xëy na médecine médecine moderne ak médecine traditionnelle ci ni ñuy defaree garab gi la ba tey jii ñu dem ba mu yàgg ñu gis ne kat am na beneen garab bu ñu découvrir Chine boo xamante ne la quinine mën moo ko ko daq téeméeri junni yoon te fajam dafa gàtt lool. Mhm. moo li ñuy wax artémisine. artémisine tey fi ñu toll nii moom la ñuy utiliser euh, ak ay dérivés ah moom la ñuy wax ACT yi ngay dégg ah nga xam te ne c' est des combinaisons thérapeutiques à base d' moom la ñuy utiliser fi mu pour faj li nga xamante ne mooy sibiru kon gis nga ñu cosaan ba lan la euh, gàncax gi la. bon fi nga xamante ne xëy na mooy am différence entre médecine moderne ak médecine traditionnelle mooy médecine moderne balaa mu laa jox garab gi dafa am étape yu bëree bëri yoo xam ne dana ci jaar ndax sànq Cheikh Khalil Niane wax na ko ci cosaan li ëpp ci expérience li ñuy gisee ne garab gi day faj nangam nit ay concours de circonstance mën naa tax ñu gis ne ah garab sàngam kat day faj feebar sàngam waaye médecine moderne loolu rek du ko doy. ginnaaw ba nga ko leeree ne garab sàngam day faj feebar sàngam dana gëstu d'abord ndax effectivement loolu ñu wax mun na ko prouver scientifiquement maanaam lan moo nekk ci biir garab gi di faj feebar sàngam ndax feebar sàngam xam nañ ne doomu jàngoro sàngam moo koy joxe donc garab sàngam war na am lu nekk ci biir li ñuy wax substance active boo xamante ne mooy agir ci doomu jàngaro bi ray ko loolu la médecine di gëstu bu ko gëstoo ba noppi isolé ko daañu gëstu nag maintenant ci ay lorom ndax garab gi bu fekkente ne day faj waaye day lor lor goo xamante ne moo yées feebar bi mu fi fekkoon kooku doon garab bu baax même bu dee efficace bu ko defee ñu xool li ñu wax produit bi mooy dañuy xool substance active boobu ñu wax ne moo nekk ci garab gi tey faj wala moo nekk ci xob yi tey faj ñu gëstu ko nag xool ndax amul ay lor yu mu am bu ko defee balaa ñoo yegg ci jox ko doomu aadama danañ jaar ci ay étapes yu bëri ci jox ko ay mala mala yoo xam ne dañ leen di bi bu noppee jox leen garab bi teste xool ndax d'abord feebar bi jóge na fi xool it ndax lor juddoowul ci garab bi bu fekkante ne lor juddoo na ci ñu xool yi ñuy wax bénéfice risque ñu xool rapport bénéfice risque bi njëriñ la nga xamante ne moom lañ ci juddoo moom lañ ci amee ndax jar na ñu teg nit ki lor yi nga xamante ne moom lay àndal. incha allah bu ko defee bu mu paree ci yooyu yëpp loolu nag ay ati at lay jër lay jël mën nañoo yegg nag ci li ñu wax ay essai clinique loolu mooy li mujj. essai clinique mooy ñu jël garab gi doog ko dem jox ko ay nit ñoo xamante ne dañ koy testé ci ñoom ci ay conditions yoo xamante ne conditions yu strict lay doon ñu testé garab gi ci ñoom xool ndax efficacité ba ñu doon wax am na ko ci doomu aadama ndax gëstu nañ ko ci animaux yi léegi léegi dañuy xool ne am na ko ci doomu aadama bi ginnaaw gi ñu évaluer li nga xamante ne mooy effet secondaire yi mu ah mais bien sûr bien sûr médecine moderne daanaka amul garab gu ñuy dox doomu aadama lu dul ne lu jiitu loolu testé nañ ko ci ay ci ay mala ba noppi loolu moom c'est euh, la phase expérimentale parfois yi gën a am solo sa nag léeg-léeg danañ am benn garab boo xamante ne bañ ko testé ci animaux yi gis nañ ni efficace la waaye dañoo gis ni garab gi day faj waaye day lor faj geeg lor gi ñoo tolloo boobaa ñu ne garab gi kat kon duñ ko jëfandikoo noonu rek la demee. waaw loolu moom day day day day dikk ci li Cheikh Sànq Ibrahima Khalil doon wax ci yàlla ci mbaaxam ni mu maye ay nit ñuy gis ay expérience yoo xamante ni amuñu laboratoire yàlla yërmandeem dafa yaatu. moo leen ko tuddoon xanaa loolu ama am am solo la mbokk yi xam ngeen comme ni ma ko xamee ni duuf ci nag bi yëpp xajul ci bi xam naa dañuy yëkkati émission tay bi xam ne ak ubbee la woon ba beneen yoon incha allah kon ñu jox kàddu gi Cheikh Ibrahima Khalil ñaan mbokk mi lan ngay tëjee alhamdulilah rabbil alamin ñi ngi sant yàlla bu baax di sant tamit Islam TV ak ay auditeurs yëpp di ñaan tamit yàlla na yàlla yokk kër gi ba mu màgg lool ba nit ñi di ko mën di suivre ci anam nga gën a yombe ak fu ñu mën ci nekk euh, di euh, wax mbokk yi rek bu baax a baax a baax nañu sàmm seen wér-gu-yaram daa bokk ci li gën a am solo ci dundub doomu aadama mu sàmm boppam ba du feebar ndaxte fagaru moo gën faju comme niñ ko waxe woon arab bi day wax ni dirhamul wiqaaya xayru min qintaarin min al ilaaj ab dërëm boo fegoo moo gën ci misaal milliard boo xamante ni da koy am ba pare yow di ko fajoo te nit ki fekk boppam ba jàngoro du dugg ci moom moo gën fenn fu nekk mu di fa dem di tuñ tuñi di sàkku ak wér gu yaram ñoo ngi ñaanal ñëpp ñu feebar yàlla yàlla wér leen yàlla yàlla eh, wéral leen may leen ak saafara ci anamuk wér ñi nga xamante ne tamit feebaruñ yàlla aar leen ba duñu feebar te tamit ñu góorgóorlu bu wax ci gën a sàmm seen wér gu yaram wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa كادو بو مودي غي دينيك خينا بين ميساج بو خمنا نكو جوخ بوبولاسيون بي تي خينا لي خليل تدي موي ني يتو فاغارو يتو فاغارو ا يو سامبل ناك مود نانكو تي جوخي رك غير نيت ني يوباليكو بوك نا سي لي فك دوم ادمه تي فيبر موي سيت سيت فخه با بلا نغا ليك غي رخص سي لوخو بو غيني تي وناك رخص Ah, balaa ngaa jox sa doom mu lekk nga raxas say loxo loxo yi bu ñu doon set feebar yi nga xamante ne ci biir lay nekk yépp daanaka mën nga koo mën nga koo faagaagal ba tey bokk na ci xool ni ñuy lekk te yëngal yaram bi bu ko defee ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu wér ak wér le ba beneen jotaay incha allah. waaw moom moom dafa saaxal mi sabab lañ ci loolu moom incha allahu taala émission yi di ñëw dinañ ci indi ay laaj yu yaatoo yaatu eh, tey dina ñëw pour def benn muqaddima rek benn introduction ci wàllu faj ak li nga xam ne mooy mbokk yi doon topp émission suñu santé yàlla subhanahu wa taala mi am fay la ñuy ñaan mu fayal ñu leen di leen ñaan tamit ngeen wéy topp Islam TV wax na ñu nekk Parcelles Assainies mën ñoo topp ci canal 47 chaîne 81 mbokk yi télé bi seen télé la yéen ci def ci dimbalal mu jëm kanam jëm ca kanam ak kanam ñu leen di daje beneen yoon ci seen émission suñu santé wasalaamaaleykum. jàmmane jàmmane. jàmmaneex ñun moom la ñu dafa neex jàmmaneex si daa ñun moom la ñu ñaan ka jaara ut ni jaara ku fi indi ay dangarus dangarus kaay leen ñu ànd bokku ndey bokku ndey bokk baay loo